li ma bëgg mooy yéen a ñu nekkal ci réew yi di bàggante lu ñuy andi Sénégal seet leen ndax lii baax na ci ñun wala baaxu ci ñun bu leen dem tubaab signé jox leen ngeen andi seet leen long terme lii lan la ñuy def misaal bu jegeñ foo doxoon ci àll bi yaa ngi gis ditax danq uul sump aloom lëng mampatang new dimb anamu yëpp dee na du daay moo ko rey de tubaab yi ñoo ko rey gouverneur général Ernest Roum moom moo daloo pale bu dakaar bi 1907 palais bi ñu ngi ko tàmbali 1902 mu pare 1907 dañoo foogoon ñoom colonialiste yi du génn Afrique mboolem xeetu meññent ñu andi ko meññent bu amul tur ci wolof rek ñoo ko andi ñoo andi sapoti andi banana andi papaay cerise karasol yii yëpp ñoo ko andi ba ñu demee na ba xam ne dañuy génn Afrique ñu xam ne buñ fi génnee ñun am nañu lépp kon dootuñu leen soxla nan la ñuy def kon nañu rey garab yi nekk Afrique yëpp ba ñu wéy di leen soxlawaat buñuy jënd pom nañu dem Europe buñuy jënd poire nañu dem Europe buñuy wut mandarin nañu dem Europe lu soxla nañ ko wuti ci Europe ba légui ñu leen di top rek nan lañu def ñu andi ñu kasia ñu andi ñu kasia di nim ne garab gi fay natlo all bi mom du tour ay xobam nan la garab gu ko jegeñ 1 km 500 ngelam di dal sa ko da ngay xanaa guy walla garab bu sec te yamu ci bu demee benn nawet jegeñ ñax jeex ci àll bi ñu dagg ay kaas yaa jox ko ay nag meew bi dafay weex ku ko bàyyiwul di naan foo paase juróom fukki at rek da ngay yomb dootoo mën a denc ci jigéen ndax lii jàmm la ci Afrique matt bi boo koy taal dafa lay andil bémpeñ ñu ne katarak katarak du jàngoro saxatam la mattam mooy def loolu këriñam mooy def loolu suñu garab yëpp rey na ko boo ko jëmbatee boo jëmbatee fukki garab ñu jox la juróomi liitar ci diw ñor daal di la jox fukki poti sardañ wala corne-boeuf nii lañ doon naxee waa kaw ñu yóbbu ko Casamance Émile Badiane ne du fi dugg mukk moo nekkoon seen ministre ne du dugg Casamance bu fa duggoon ne ne mango jeex na fa ñu bu ko yóbbu Kédougou Maba Girassi ne kenn du ko yóbbu Kédougou ñu bu ko yóbbu région bu Tamba Madi Sissoko ne kenn du ko fa yóbbu ñun lañ ko andil fii ana garab yi yëpp dee na tubaab dafay jëf long terme fii ak juróom fukki at fii ak seetal toqal yi ñuy defal suñu xale yi fii ak juróom fukki at ci kanam kenn dootu passé te ñaari doom wala benn doom parce que dañoo tiit gis nañ africain ni ñuy pénétrer biir Europe yéen xale yi xam ngeen coupe du monde bi passé kan moo ko jël France moo ko jël équipe bi ñaata la onze joueurs fukki fukki ak benn juróom-ñett yëpp ñu ñuul lañ kon France jëlu ko Afrique moo ko jël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 صل وسلم دائما أبدا على